asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di jaar kenn ku nekk fi nga nekk maa ngi la fay fekk jox la loxo euh, ñëw di leen présenter benn opportunité boo xam ne jamono yi ñu nekk di mu ngi cartonné fii ci Sénégal ñu koy wax pay PetronPay PetronPay benn société américain la boo xam ne euh, ñu ngi ko créé depuis 2012 la ñu wax euh, depuis deux 2020 bi la commencé ñëw. fii ci côté Afrique de l'Ouest surtout Afrique de l'Ouest lu mel ne ay Cameroun Nigéria bon réew ñag yi daal ñu ngi ci liggéey xaalis ñoom bon mu ngi ñëw fii ci Sénégal nag gars yi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax mu ne woon tey comme bëri na ñoo xam ne dañuy dugg ci internet di xool nan lañuy ñuy fexee ba mën a inscrire u Petron am na ñoo xam ne xam nañ ko mais am na ñoo xam ne xamuñu ko ma façon yéene ñëw pour expliquer leen euh, nan la ñuy def Euh, ba inscrire ci Petrompay donc euh, Petrompay moom moo nekk nii ngeen di gis nii lii sama compte la dama ciy dugg comme saa ma expliquer leen nu muy demee ok euh, boo leen xoolee lii moom mooy compte Petrompay boo ci ubbee boo ko ubbee bees lii la lay indi la li nga yor ci xaalis fii lay nekk comme saa maa ngi yor fii 77 dollars moom moo nekk fii lii moom mooy li nga xamante ne moom moo fi nekk boo dug boo mësagul dugg Petrompay mu mënuloo ko gis mais ki nga xam ne moom moo la dugal inscription bi man moom laa leen bëgg a expliquer pour ngeen xam maanaam soo ñëwee bëgg a dugg Petrompay nan ngay inscrire donc ki nga xam ne yow mi nga xam ne da nga yor compte Petrompay nga am sa rakk wala sa mag wal sa jarbaat wala sa xarit nga bëgg ko dugal Petrompay soo ko bëggee inscrire ci yow maanaam. Euh, mu nekk li ñuy wax fiol mu nekk koo xam ne yow yaa dugal dugal Petronpay lien sa lien de parrainage moom moo nekk nii moom ngay copier gis nga fii moom ngay copier nga ubbi beneen page wala nga déconnecté fii su nekkee téléphone portable nga nekk wala foo ci mën a nekk mais balaa euh, may sori daf leen di ñaan bu fekkee ne abonné woon ci chaîne bi mooy sunu TV nga jéem a abonné foofu pour que fas na fas naa yéene lépp loo xam ne opportunité la ci wàllum internet bis ni ki tey fas naa yéene euh, di ko def ay tuto di ko dugal fii su ko defee boo ñëwee fii rek ah nga mën a abonné ci chaîne bi su ko defee euh, nga abonné wu ba nga xam ne saa yoo saa yu ñu génnee vidéo bu bees yow su boobaa di nga ko mën a di nga ko mën a seetaan. Hmm. am nañu aussi groupe telegram boo xam ne ci chaine bi la nekk soo cliquer fii dina la yóbbu directement ci telegram bi ok donc ñu ñëwaat euh, copier woon naa lien bi donc damay ñëw fii rek ma kole ko hmm. ok ma dem su ma ñëwee lim may li ma li ma li ma li ma Petron Pay di won mooy que ne Petron dina ma won que ne lien bi euh, maanaam lii mooy wane ne moodu F20 bi moom moo moom moo référé waa ji ma def fii node utilisateur supposons ma bëgg a def fii moo moodu F2 par exemple waaw mu nekk sama nodu utilisateur su ma neexee ma ne comme euh, Mamadou laa tudd bon amul problème waaw bu fekkee Diallo laa sant wala bon ma def fi sant bi waaw email bi il faut ma def fi email boo xam ne mm, kii di dugg nga xam ne moom mooy dugg si nii mu nekk Modou Diallo moom moom mooy email donc comme man noonu la maa ngi ubbi woon benn email boo xam ne pour essai la email bi moo nekk nii damay copier email bi Hmm? dama koy copier su ma ko copier ba mu jeex ma ñëw su ko defee dama koy mën a dugal fii email bi moo nekk nii ah, ma jël ko dugal ko moo nekk nii ma répété email bi loolu lañ ma wax waaw donc euh, li may def mooy damay répété email bi waaw su ma répété email bi fii hmm? su ko defee ñoom dinañu xam ne. Euh, email bi nga xam ne moom laa leen jox man maa ko moom waaw nest pas waaw ok mu ngi noonu pays ma xool réew mi nga xam ne foofu laa dëkk man maa ngi dëkk senegal donc li may def mooy damay wër senegal ba gis ko fii ci SI waaw senegal mu ngi nii ok léegi numéro téléphone ma xool aussi numéro téléphone Sénégal waaw loolu aussi dama koy xool damay xool waaw esi fan lañ nekk waaw ko defee moom lay xool Sénégal Sénégal moo nekk nii waaw su ko defee ma dugal sama numéro téléphone d'accord euh, pour l'instant damay couper vidéo bi ba dugal puisque aw aw ma envie que numéro bi mooy dugal tamit ñëpp xam ko ah d'accord ok léegi mot de passe waaw dugal naa numéro téléphone bi léegi mot de passe moom laay dugal léegi mot de passe bi yow yaa kenn ku nekk yow yaay xool ah chiffre yoo xam ne boo ko dugalee doo ko fàtte moom ngay dugal waaw man damay dugal sama mot de passe ah ok même mot de passe bi waaw ok léegi def naa li nga xam ne moom laa war a def yëpp dugal naa lii du man maa koy dugal Petronpay moom moo may wax ne yow kii moom moo la indi si ñun ma dugal sama node utilisateur boo xam ne bu bu ma demaatee beneen yoon bu bëgg a connecté moom laay def fii moom moo fi nekk waaw su ko defee mooy sama node utilisateur waaw léegi léegi euh, nu mu tuddati euh, sama tur sama sant ma bind sama tur sama sant sama adresse email bi nga xam ne man maa ko moom man mi nga xam ne man maa bëgg a dugg euh, ma confirmer adresse email bi réew bi ma dëkk ma sélectionné ko def ko Sénégal sama numéro téléphone ma def ko fii ma def fi mot de passe confirmer mot de passe ma doog ñëw nag créer créer mon compte ma bës foofu taxaw xaar léegi ñu ne ma compte bi créer nañ ko déjà waaw def créer nañ cela dire que information yi ma dugal yëpp ñoom jël nañ ko mais compte bi activagul maanaam doxagul puisque compte bi pour mu mën a active il faut ma dem connecté wu ci sama adresse email ma valider ko su ma ko valider ba pare ma doog ko mën a nag ñoom ñu xam ne adresse email bi nga xam ne man joxe naa ko man maa ko moom donc ni may def mooy damay ñëw sama adresse email gisoon ngeen ne moom laa génne woon fii Petron Pay envoyé na ma message mu ngi nii waaw wax ma ne man pour ma activer sama compte fii Petronpay moo nekk nii ma bës foofu su ko defee pour ma confirmer email bi lii moom mooy wane que ne man maa moom email bi su ma su ma bësee ci bouton bi dañ may delloowaat ci Petronpay gis nga moodu 2 bi ñëw na ak sama mot de bi nga xam ne moom laa dugal li des rek moom mooy ma connecté wu waaw fi mu nekk nii man connecté wu naa waaw Moodu 1 jox na ma euh, dugal na ma Petrom Pay mais feyaguma dara lii dama ñëw rek créé naa compte bu dugg naa léegi li des moom mooy nan laay def nag ba mën a jënd baril moo xam baril bu vingt cinq dollars moo xam cinquante moo xam cent ak lu mu mënti ki doon en tout cas dugg naa Petrom am naa sama mot de am naa sama login su ma ñëwee suma compte fii. Hmm? mooy suma compte suma euh, nom du compte Modou Diallo adresse référence ki nga xam ne moom moo ma dugal moo nekk ni euh, réew bi ma dëkk Sénégal la nom di utilisateur bi nga xam ne moom laay connecté woo euh, ci Petron Pay soit ma dem ci beneen machine wala ma dem ci beneen téléphone ak bu mu mënti gi doon moo nekk nii sama numéro téléphone moo war a nekk fii waaw sama mot de passe su fekkee dama ko bëgg a changer il faut ma ñëw fii ma dugal mot de passe bi nga xam ne moom laa njëkkoon a dugal su ko defee ma confirmer fii ma confirmer waat fii waaw léegi nii la ñuy créer compte Petronpay nga xam ne amul benn coono waaw su ko defee euh, ma lay ñaan yow mi seetaan vidéo bi nga abonné euh, te nga xaar bu soobee yàlla dinaa defar beneen vidéo boo xam ne dinaa la woon nan la ñuy activer contre petrompe nga xam ne lu simple la lu yomb la lu yomba yomb la incha allah jërëjëf merci beaucoup